nga xamanteni ñoo bokk ci alliance nationale des amis de Marème Faye Sall fii ci Kër Massar samedi bi doon nañ amal bésub set setal seen bésu set setal boobu nag li ko waral du lenn lu dul wóyal li nga xamante ni moom la son excellence monsieur Macky Sall digle woon. waaw daje tey bi de euh, si digalu président la président nag bu waxee mooy Marème Faye ñun bu nekkee xaritu Marème Faye Sall mu nekk suñu marraine bu président joxee ndigal dañ ko war a jëfee. ndigal li nag mu ne samedi bu njëkk si weer bu ne nañ ko liggéey nañu génn ndax ñu bare dëkk mi dafa salté ñun sax daanaka xeeb nañu loolu parce que dañu bëggoon def eh, bis bu ñu def ko wala samedi bu ñu def ko mais yàlla dogal na comme moom samedi bu jot la wax pour ñu fësal ko jëmmal ko ñu ñopp moo tax ñu génn tey pour bale Kër Massar seet ruq-ruqaat yi nga xamni suñu doore yegg na fa dajale mbalit mi pour dem tour ji ko. góor gii di Mangone Diouf nek chargé de communication bu alliance nationale des amis de Marème Faye Sall fii ci Kër Massar dellu si waat na wax ñu li nga xamanteni mom moy mission bile alliance. alliance nationale des amis de Marème Faye Sall wër na Sénégal dem na ba diaspora yamul Sénégal kessé dem na ba Italie dem na Espagne dem na Istanbul am nañ fu nek ay kii mais bon sen euh, sen sen sen mission mu ngi topp si li nga xamni ni moom la Marième Faye Sall di liggéey nekk si ginnaaw jëkkëram di ko jàppale social diko jappalé ci new ju doole diko jappalé ci Sénégal jëm kanam diko jappalé aussi ci programme donc les alliance nationale des amis de Marième Faye dafa jóg ngir ànd ak Marième Faye Sall si lépp loo mu ngi si yëngatu rek mu mu mu jàppale ko ci